waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen euh, ziar euh, di leen ñaanal jàmm di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jégalu nag bu baax a baax a baax ci leeral yi nga xamante ni maa ngi koy indi jëme ko ci cas bi may dégg fan yi ci affaire tiiti Euh, sunu woykat na international boobule ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaar mu mel ni que gis nañu benn góor goo xamante ni wax na ne mooy papaam ñun nag ku ñu xam xam ne ay situ internet ak di ci wax ay yu mel nii euh, du sunu jikko bokkul it ci sunu liggéey boole wuñ ko ci sunu bopp dinañ ci def sunu liggéey ñu dugal ko mais def ay audio ñu di ko dugal loolu bokkul ci sunu sunu sunu programme mais ku xam sunu programme it xam ne émission kër gi bi jàll 2STV souvent set ku réer dañ ko ci daan def lu baree baree bare yàlla diñ ci defal sutura yu mel ni kaa yu mel ni kaa yu demee nii euh, diggante góor gi ak titi mi mu wax ne mooy euh, doomam paa bi li mu wax yëpp dëgg la ci ne photographe la woon ci ne Mauritanie la nekkoon ci ne ku ñuy wax Yaaba Faal moo doon soxnaam ci ne am na doom bu tudd Ndey Faatu Tine ak rakkam yooyu mu wax yépp dëgg la waaye nag dafa juwaat leen Ndey Faatu Tine yi parce que Titi bi muy wax sama aqulaay taala dama julli gee ba pare barki Seydina Muhammad xaw ma Titi mës naa koo gis benn yoon yaa sept de cela parce que sama doom moo ko bëggoon mu ñëwoon foire ba ma jàpp ci sama loxo doom yóbbu ko ba ci moom ci laa mës a gisee Titi barke alxuraanul karim aw ma numéro am gëw ma ni am na sama numéro mais damay wax rekk sama aqulaay taala di wax rek en tant que yaay joo xamante ni am naa ay mbañu rus bu ñu yëkkati woon lu mel nii teg ko ci sama kaw ku nekk di ci jàpp di wax fi muy toll ci man mais barke alxuraanul karim maam ak titi fuuf jaralu ma wax lu nekkul mais dama ko xool tey jii carrière am njabootam boroom këram ak ni nga xamante ni noonu lañ koy interprété ma def ci samay gëstu ci ndimbalu sama benn nit bu nekk moritani mu xamal ma ne ma yaaba faal bi paa biy wax mu ngi moritani premier la dëkk di sëy ak boroom këram nekk mag ndey faatu tin bi muy wax te jàpp ne muy titi waykat bii mu ngi foofu moritani ci premier di sëy ba am ay doom rakkam mu nga fa su fekkente ni moom paa bi bëgg na ci lu ko leer bëgg na retrouver yaaba faal boobule mën naa ko wommat ba mu ne tegg ci yaaba faal moomu ne tegg ci loxo ndey faatu tiin boobu nga xamante ni moom lay wax ne mooy doomam ñu ngi foofu ci Mauritanie su bëggee it mën naa ko jël numéro téléphone frère yaaba faal boobu jox ko ko ba ci ki ko takkali woon jabar jeeg yépp dafa nekk loo xamante ni ñëpp xam naa leen te par le biais de benn nit boo xamante ni mu ngi nekk foofu Mauritanie moom laa ci jokkool liggéeyante ceeg moom lépp fa la ko fekk moom fekk na lépp xam na lépp te même bu fekkente ni Titi soxla na numéro ndaw soosu sax mën naa ko jël jox ko ko yàlla rek a soxla ko pour mu gën a leer mais paa bi bu ko soxlaa doomam bu ñuy wax Ndeye ak yaayam Yaaba Fall ak rakku Ndeye Fatou Tine ñu ngi Mauritanie premier lu mu ci bëgg ci ay leeral ci ay numéro téléphone mën naa ko yëkkati jox ko ko foofu nag laa ci yem duma ki sori maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu àq ñëpp di wax ne lii du sama domaine mais seet ku réer moom ku ne yàgg naa xam soxna Mbayang mu nekk ci ci télé bi di ci liggéey loolu moo tax lii ma jóg def ci ay démarches pour dimbali sunu góor googu yàlla def mu retrouver ak njabootam waaye itam dimbali itam sunu artiste bii nga xamante ni ma delluwaat waxaat ko wallahi barki Seydina Muhammad xamuma ko xamuma soxloo ma ci moom lenn mais dama xam ne rek yaay la te poids bu diis la te ku nekk mi ngay waxee ci façon bi mu la neexee te yaakaar naa ni lii moo ëpp solo dem gëstu ji réellement fan la ndey Fatou tiin bi paa bi di seet nekk. voilà euh, Pa Ndiouga <clears throat> moom lañuy wax Pa mais Pa Ndiouga la tudd waaw histoire boobu muy wax Lamine Dramé et yooyu yëpp tegal nañ ci leer leer nañ mais am na benn cousin wu Ablaye Fall euh, benn cousin wu Yaaba Fall ku ñuy wax Ablaye Fall yaakaar naa ni góor gi itam dina ko xam. c'est un ancien policier foofu en Mauritanie euh, dina ko xam donc ñu am ci ay preuves yoo xamante ni macha allah bu fekkente ni retrouver doomam rek moo ko ñor incha allahu taala njaboot gépp a ngi fi yaaba faal boobu mu takkoon mu nga fa ndey faatu tin boobu mu am doomam ak xadi ñoom ñëpp te nekk fële ci premier ñoom ñëpp ñoom ñëpp macha allah ñu ngi fi mu ci bëgg ciy leeral daal dinañ ko leeralal voilà. soxna Mbayang comment vas-tu na nga def man yi dama ñëwoon pour leeral rek ci affaire Ndiogoutyne bi njoogutin lu muy wax yëpp c'est takkoon na yaaba bu mu takkee yaaba yàgg na c'était les années les années soixante dix mu yóbbu ko Nouadhibou nu am ñaari doom bu nu amee ñaari doom mu abandonné leen dem boobu ba léegi rends-toi compte les années soixante dix ba léegi xale yi màgg nunu ba am nunu am nañu ay doom ba seen doom yooyu di sëy ba am na nañu ay sët kenn si ñoom sax xaw mu xari walla ndey faatu am na doomam boo xam ne mi ngi sëy Louga pour te dire donc njoogu xaw ma lan moo ko poussé muy def nii parce que mag la mais ñaari doomam yooyu muy wax ndey faatu ak xadi ni ngi fii Nouakchott ni ngi fii Nouakchott di sëy njoogu li muy wax yëpp yooyu muy wax yëpp effectivement c'est vrai sama papa daf ko bañoon may parce que sama papa daf ne woon doxan dem du ko may doomam parce que xamul xamul fu mu dëkk xamul ay mbokkam ñi nekkoon fii paa yi nekkoon fii noo si jàppoon ba nu may kaka mu jël ko mu am ak moom ñaari doomu abandonné leen dem depuis les années soixante-dix ba léegi kenn gisutu ko mais li muy wax yëpp on a ko ce n'est pas la titulaire non non faatu Fatou la en là en ay Khady elles sont bien vivantes elles sont là avec leur mère yaaba sama cousine sama turndoo yaay la toi si tu veux d'autres informations après dans si mën suma waxtaan waaw man man man Titi sax xaw ma ko sax je ne la connais pas peut-être parfois ma gis que télé bon bon je ne <laughs> bon peut-être au, moment où j'étais plus jeune mais je ne m'intéresse plus tellement à, à ces choses-là à la musique mais yàlla rek moo tax may wax xam la xam naa ni njoogu du papam xamu ko mais kii euh, elle veut vivre au-dessus de de de la petite la yàq carrière am wala yàq ko wutu ko pour yàq sax dafa wut rek pour pour soustraire de l'argent c'est que j'ai compris moi pour soustraire que de l'argent parce que ñaari doomam yi ni ngi fii ni ngi fii Nouakchott Titi nag il faut que soit courageuse quand tu am na yoo xam ne soo demee dans les médias wala nga nekk star wala nga nekk dans les bis business nii la y a des coups bas y dana am na ñoo xam ni par jalousie ñoo xam ni pour wut buzz yow nag yow yaay jël sa destin en mais que tu sois courageuse nga wax ak sa yaay sa yaay sa yaay xam naa ni xamul Mauritanie mosu fi ñëw je suis sûr de ça parce que man xam naa ni njoogu sama sœur la takkoon sama sœur la takkoon abandonné ko di en 1970 jusqu'à présent boobu ba léegi fan la nekkoon fan la nekkoon buy wax yaaba dafa nangoon boppam si moom <laughs> du les façons moi je si même je suis prêt à me déplacer à venir vous voir nu leeral que nu jàkkarloo jàkkaarloo man ak moom jógu mais kooku muy wax mooy dajji néegam kooku ñoom ñoo bokkoon di liggéey kooku day wax rek kooku ay ay ay affaire yu mu yu mu yu mu créé la rek kooku d'ailleurs il est décédé ça fait même pas un an à ñoom ñoom bokkoon di liggéey fii ak beneen waay bu ñuy wax kayte ñoom ñëpp ñoom ñetti ñëpp c'était des photographes kooku il il s'appelait Lamine Dramé il est décédé tout récemment ça fait un an je crois vraiment Ndiogou man il m'a il m'a beaucoup et surpris quoi vraiment bon mais vraiment loolu ay ay affaires yu mu yu mu rek ay affaires yu mu forcé la ça n'existe pas